xam nga dañoo nekk domaine bi ñuy wax dafa am probabilité xam nga donné météo bu ne day taw rek 100% day taw donc aussi li ngay xalaat investir da nga koy investir tamit alali réew mi la alali askan wi la donc on est obligé c'est vrai am na lu ñu defoon prévention parce que euh, chaque année am na budget matrice d'action prioritaire bu ñuy def chaque année boo xam ne bii d'ailleurs budget bi ñu ngi koy exécuté parewul par entre temps donc ñëw donc lii dafay tax ñu mën a yokkaat budget bi parce que matrice bi li ci ëpp boo xoolee ci intervention yi c'est des zones endémiques maanaam zone yoo xam tout le temps day am ndox tant que rek luñ problème assainissement bi muy Dakar muy Kaolack muy Touba loolu dañ koy dañ koy xam mais tey euh, yeneen yeneen région dañ ciy yokk

wala bok du yam ren parce que avec les changements climatiques il faut s'attendre à ce que le melni nii am c'est vrai amna avantage et inconvénient parce que amna des avantage parce que ren ñi ngi japp ne ndox mi bu te espacé normalement taw euh, gerte yeeg dugub yeeg yeb dina bax parce que le aussi des ñariñ pour la relance donc tout ça c'est des c'est des choses malheureusement

reen loolu lépp am na fa mais en tout cas danañ ci danañ ci taxaw taxawu leen parce que tamit loolu loolu mooy suñu suñu rôle loolu la ñuy xaar ci ñun. ñu ngi koy xayma eggalaguñ yaakaaroon naa ne démb danañ ko àggal mais xam nga bii pa plan Orsec bi dafa touché réew mi yëpp. parce que réew mi tey bari na ci dëkk kër euh, euh, région yoo xam ne yii moo gën a touché yeneen yi waaye yëpp la ñu laal tey boo xoolee li ëpp ci ndox mi ngi am région de Fatick. du région Dakar lépp ci ndox actuellement parce que les gens sont am 216 mm. on a plus de 200 mm à Palmarin nga il Il y en a également vois le Joal de faire son del 164 mm. on est obligé de pomper un ko pour mu wàññi euh, Thiès également bari woon parce que demoon na am ba 124 mm. Dakar également bari na parce que bari na ci plus de 100 mm. mais il y a limee 14 régions yëpp moom la taw bi donc le lépp nag région bu ci nekk gouverneur def envoyer envoyé li soxla envoyé ay besoin donc yooyu yëpp la pour éviter li muy li wax redondance manam jël lo xamné li niveau central laajte nako niveau régional laajte nako ñukoy def dépenses deux fois donc lo motax service ñi ngi ciy liggéey am nañ yaakaar ne peut-être dañ ko mëna stabiliser xam exactement mais en attendant xaaruñ lolu paré amna ci yo xamné xamnañ né par exemple dañuy soxla ay pompe donc lolu jarul may xaar ba ba budget bi paré soit damay ab wala ma réquisitionner wala ma louer mëna naa jël déjà ay pompe mettre ko déjà sur le terrain Thank you.